chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañu agréer ñu daje woon fi tey ci turu sëñ maam Cheikh Mbacké doomi sëriñ bi moom sëñ Amidoun mi nga xam ne mooy initiateur principal ci jataay bu tedd bi ñu def tey te mooy consultation gratuite boo xam ne bi mooy ñetteelu édition ñu di ko def fii ci Daaru ñun nag ñu ñëw fi en tant que doomu dëkk bi ñëw fi tamit en tant que euh, partenaire ànd ci liggéey bu am solo bi nga xam ne saa bu nekk bu ñu àggee ci veille yu màggalu Daaru Salaam dañ koy amal ñu daje woon fi tey daal pour consultation gratuite boobu voilà loolu moo ñu fi dajale tey. ci wàllum programme bi tey dañu jëloon partenaires yi nga xam ne yëpp ci wàllum santé la ñu nekk muy waa TAM ak waa SAMAT jóge ba dakaar ak euh, partenaire pharmacien yi fi nekk ñu sëñ Amidoune Dieng ak euh, population wu Daaru sëñ Maam Cheikh mi nga xam ne mooy euh, initiateur principal di kilifa jataay bi at mu nekk da koy def ren nag dafa am yaatu bu am solo bu ci am mooy waa samat yi nga xam ne jóge nañ ba Dakar mat nañ 30 médecins kenn ku ci nekk ñu spécialité wu ci domaine yu bëree baree bëri ci wàllum santé. voilà euh, d'abord dañuy commencé wax ni ren mooy troisième édition wu journée consultation gratuite yi première édition bi amoon nañ trois cent malades euh, daaw six cent malades ren euh, médecins yi dañoo moom médecin dañoo yokk ndax daaw ren boo seetlu am nañ une de médecins généralistes am na ay spécialistes chirurgiens pédiatres euh, ORL ay dentistes ñëpp a fi ren am na njort ñu nombre bi dina yokk. donc tey ñun ñoo fi ñëw comme ni ko docteur Diop waxee donc di nuyu d' abord waa Darou Salaam waa Touba waa Mbacké yëpp. parce que tey dañ fi ñëw indi suñu bus boo xam ni indi na trente personnes yoo xam ne am na ay médecins généralistes am na ay dentistes am na euh, ay sages-femmes wala am na pédiatre ak yëpp yoo xam ni vraiment suñu rôle mooy jàpp ci affaire yi ah ñun nag tey bi ñu fi ñëwee gis nañ nit ñi ñëw nañ ci consultation bi bu ma nee ñëw nañ ci consultation bi bien avant parce que ñun démb ci guddi leen ñëw voilà indiale suñuy garab donc de passage ñuy remercier waale Mame Abdoulaye Fall. parce que moom moo taxan ñu xamante xamanteek waa Daaru Salaam voilà pour def consultation médicale bi bi ñu ñëw indi nañ ay garab indi nañ personnel médical avant ñuy commencer consultation yi comme ni ko docteur Diouf waxee gis nañ ne vraiment population bi ñëw nañ mu mu ñuy wan ne vraiment demande la donc c'est une demande sociale boo xam ni population bi soxla nañ ko. ñoom ñëpp ñu jël euh, seen i matuwaay yëpp ñëw ànd ak ñun fii tey ci liggéey bi ñu def ko aussi ci turu askan wi yëpp. jàppale ko askan wi ndax wàllum santé dafa nekk lu am solo ci ci ci ci wi bon loolu moo tax nag wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte tey population Darou Salaam ñëw en masse ñu def ko tamit ci màggalu Darou Salaam ndax màggalu Darou Salaam ku nekk xam ne li ci des bareetul yaakaar naa fii juróom-benn fan lay doon moo tax ñu teel ko def nii pour may occasion population bi yëpp ñoom ñu mën a ñëw bénéficier wu ci ndax bu ñu xasee àgg ci màggal gi day jafe. association bi de moom daanaka boo xoolee yéen yéen a seen bopp boo xoolee fii daanaka daaw bi mooy bi mooy suñ troisième édition première édition bi ñu ngi amoon amoon nañ trois cent et quelques personnes constitué woon na leen bu daaw bi ñu ngi am six cent et quelques ren itam ban xëyee léegi jëlagul yaakaar naa ëpp na cinq personnes te dañuy door a ndax li ko waral mooy fii di Sénégal boo xoolee problème bi ñu gën am mooy faj problème faj la ñëpp am waaw te boo xoolee nit ñi tamit amul moyen yu ñu dem hôpital daanaka ticket yi day seet boo xoolee fi lépp ñu faj ñu dem ñu dem ñu dem jël ko si hôpital bi. léegi nag feebar yi mooy feebar yi faral di gën a gis si zone bi rek euh, hypertension artérielle diabète syndrome ulcéreux nit ñi di ko wax estomac donc colopathie fonctionnelle entre autres daal feebar yooyu la ñuy faral di gën a gis daal. donc bu dee les pathologies li nga xam ni noté nañ ko comme euh, feebar yi nga xam moo fi gën a farat moo fi moom lañ gën a jànkonteel pareeguñ mais gis nañ ni comme ni ko docteur syndrome ulcéreux yi ñi nga xam dañuy jàmbat problème bu estomac problème tension aussi parce que man mii ci ñuy consulter laa bokk nekk na lu fi bëri presque fukki malade yoo jël au moins juróom-ñett yëpp seen tension day yéeg soit ñu ne la dañoo amoon tension wala ñu ngi doog a xam dañoo am tension à part loolu aussi gis nañ ne souvent anémie aussi bëri na fi jigéen ñi manqué deret bëri na fi trop boo loolu nag ñuy gën a inciter médecins yi ñuy euh, jéem a conseiller waa les ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques parce que faj anémie du garab rek. bi may ñëw yaram yuy metti yeggoon naa ko ci sama yaram. affaire xol yooyu métti aussi yëgoon naa ko ci sama yaram waaye euh, seetal nañ ma ko. bon c'est vrai que Touba lañ nekk Mbacké Darou Salam consommation café bi dafa am doole te ça fait partie des chélateurs en fer donc kii naan café bu bëri ak ataayu bëri bokk na ci li nga xam ni ñu gën a inciter population wax leen vraiment ñu jéem a euh, wàññi wàññandiku ko jéem a faju faratal dem hôpital. ah yéen ñi nga xam aussi yéen a yor média yi aussi ñu ngi leen di gën a ñaax ngeen gën a sensibiliser les populations parce que médecins yi aussi lépp. parce que médecin suñ naree suñ naree def lépp rek daanako du sotti. voilà euh, li ñuy wax mooy OMS li ñuy rejoindre OMS si recommandation yi mu joxe mooy nit ki ni wàññi consommation de sel bi OMS 5 grammes de sel la le conseil par jour am nañ ni du yomb waaye nag nit ñi wàññi consommation xorom bi wàññi consommation yu nii nii wàññi consommation suukar bi généralement loolu la nga xamante ne dina permettre ak ak di tàggat yaram yi dina permettre peut ñu mën a prévenir lu mel ni tension hypertension lu mel ni tamit diabète. bon waaw xam nga nag moom moom Saka population bi moom des fois il faut que ñu sensibiliser xamal leen kat hôpital boo dem rek am na fa volet social volet boo xam ne it euh, pour ñu xam ne kat dañoo xaw a néew doole am na fa xam ne am na fa waaye nag dañuy faral di gis ne daal bu journée yi ñëwee daal moom population bi yëppay daw ñëw. ñi xam ne daaw ak daaw jéeg ñëwuñu woon am ñoo xam ne sax année benn lay kon nag il va falloir que ñu sensibiliser bu baax a baax à Gox yi. ñu xamal ne daal hôpital bi daal ubbeeku na pour ñoom saa bu ñëwee rek incha allah lépp loo xam ne bëgg nañ ko fi rek bu fekkee mu fi rek dinañ ko saafara bu neexee yàlla. waaw effectivement parce que chaleur aussi da ciy joué effectivement parce que boo xoolee bon c'est vrai que consultation yi du demee comme bu nekkoon à l'hôpital mais si on avait la possibilité comme bu ñu nekkoon a l'hôpital parce que li ñuy wax déshydratation dafiy am maanaam manqué ndox surtout ci personnes âgées yi xam ni nga xool xool seen yaram ak yooyu di nga xam ne ñii dañoo manqué donc on leur conseille luñ gën a mën a naan aussi doyul parce que boo déshydraté waxuma la rek problème mu tension mais lu nekk mën na ko indi ci yaram bi ce qu'on appelle déséquilibre ñëpp ñu fal naan autant que possible muy mag ñi muy xale yi voilà loolu aussi conseil boo xam ñu ngi ko jox population parce que période de chaleur lañ nekk voilà pour le suivi parce que même euh, bi ma am elle a 30 ans donc moom maladie bi mu am mënuñu ko faj fii à 100 pour cent dama j'ai appelé docteur Diop bu ñu gisee benn malaad boobu dafa nécessité ñu defal ko une orientation wala dans un autre hôpital dañ koy bindal référence soit ñun ñu recevoir ko à Dakar wala ñu boole ko ñoom docteur Diop ñu jël ko fi en charge mais daal du maladie yëpp lañ mën a faj fii mais au moins mën nañ instaurer le traitement parce que traitement bi c'est gratuit dañ leen may euh, garab yi gratuitement dépistage c'est gratuit même ku war a génne bëñ ñoo la koy génne gratuitement ba pare may la garab yi voilà donc bi nag nekk fii. ñu jëm la référer dans les autres hôpitaux parce que Mbacké mi ngi fii Touba mi ngi fi ainsi de suite. ndax euh, journée yi day permettre que du faj nag mais day permettre leen ndax si ce matin rek on nous a déclaré un de rougeole un cas suspect ba cas boobu enregistré nañ ko danañ def prélèvement incha allah acheminé ko au niveau supérieur bu ko defee ñu mën koo confirmer wala affirmer kon daal defe naa daal yi journée yi day permettre baax a baax a baax a baax pathologie nga xam ne doon làqatu mun a feeñ yenn cas yi mën pour def un traitement kon journée yi moom c' est bénéfique pour la population c' est bénéfique pour le ministère de la santé kon defe naa lii moom njëriñ kese la. waa consultation bi daal dañ cee am mbégte mu rëy a ndax euh, chaque année sëñ maam Cheikh Mbacke dina fi def consultation gratuite bu màggal gi desee juróomi fan. ñun waa ñun bàjjenu gox yi nag am nañ ci mbégte mu rëy parce que day am ñenn jigéen ñoo xam ne dañuy war a def échographe te duñ am moyen pour def ko yenn jigéen yoo xam ne. dañuy bëgg def seen consultation ñu am moyen pour def ko te lii dañ ciy profité ñoom tamit def seen i échographe def seeni i consultation ak euh, mboolem jigéen boo xam ne rek bëggoon nga seet sa yaram te mënoo ko ndax waa Maristes a ngi fi sage-femme yaa ngi fi euh, ñëpp ngi fi daal ñoo kon ñu am ci mbégte mu rëy di ñaanal sëñ bi at mu nekk yàlla na ko gën a man man nag dama fiy doo ko tàmbali le premier la tàmbali dama remplacé sama benn collègue Boy de ñoom nag euh, dañuy faral di organiser ay journée de consultation gratuite bi mooy seen troisième édition man bi mooy sama première édition kon dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax je parler au nom de la région médicale au nom du district sanitaire de Mbacké au nom du poste santé de de Darou Salam kon euh, ñu ngi seen yàlla bu baax a baax a baax di sant waa dëkk bi yëpp nag di profité tamit ci occasion bi c'est la première fois di nuy ñëpp nag di leen taal sama loxo di leen seen doom laa seen taalibe laa ñëw naa ci dëkk Darou Salam di taalib Serigne Touba ngeen jàppale ma ma liggéey ñu am ay résultats yu baax a baax a baax. Euh, kilifa gi santaane lii de ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yokk ba yëg ko ci barke Mouhamed war may lislaam yal na ko bur yàlla yàggal ci suñu kanam ci barke Mouhamed war may lislaam jërë ngeen jëf lii am na solo lool cim réew ndax am na ñoo xamante ñu ne mënaluñu lii seen bopp kon képp koo xamante ne kii ne da nga fexe ba lii mën a am ci néew di doole yi. ñoo ngi lay ñaanal ñoo ngi lay ñaanal yokk ba yëg ko Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer